di ko bàkk di ko gërëm di ñaan mu jéggal ñu suñuy rëcc-rëcc waaye jéggal ñu sunu njuumte noo ngi julli tey selmal ci ar rasulu muhammad sallallahu alayhi wa alihi sallam di ko ñaanal jàmm moom ak i sahaabaam ak taabiina lahu bi ihsaanin ila yawmi ddin mbokk yi sunu xutba tey dina tënku ci xusnu zann bil mu'min mooy rafet njortu ci sa mbokk jullit sa mbokk pas-pas del rafet ci moom njok moom njortu waxtu wu nekk jikkoo ngi nii mbokk yi boo xam ni islaam dafa ñoo ñaax pour ñu jëm ci ñun ñépp te nu bàyyi ko xel te bokk na ci jikko yi nga xam ni dana tax ñu jàppante fonkante bëggante société bi ñépp nekk benn moo xam ci kër la walla ci liggéeyukaay walla ci dundin bi ñépp mbokk yi jikko boobu muy rafet njort suñu demee ba amatul ci nit ñi ñiy dund rafet njort amatul seen diggante bépp buum bu doon jokk mbokk dana dagg ay taqattaat xibaalul kurba waaye ñaaw njort lu muy indi day samp noonoo samp histoire ci diggante jullit ñi diggante nit ñi su ko defee nag lan lay jur day jur ay tuuma kenn ku nekk di yëkkati tuuma di ko teg sa moroom di fenal sa moroom di waxal sa moroom loo xam ni buggoo ci lu dul lor ko rekk amaan na danga koo contre wala dalaa neexut wala li muy wax gërëmoo ko nga ni naa ko utal sos woo xam ni su ma ko ko tegee rekk yoon dal ci kawam mbaa ñépp dal ci kawam walla mu jaaree fa dundam yàqu mbokk yi jullit day islaam da ko jàngaloon ne nay utal moroomu jullitam ngànt waxtu wu nekk su fekkee ne ngal am na mbokk yi borom bi daf ñoo tere njortu ñaaw ci sunu diggante société yépp li koy defar mooy rafet njortu waaye moytu li ñuy woowee suu zan borom bi ne ay yéen ñi gëm yàlla moytu leen njortu ndax njortukat li ëpp ci njortu bàkkaar la kon yàlla lan la jëfandikoo yéen ñi gëm yàlla yaa ayyuha alladina amanu jtanibu kathiran min azan moytu leen njortu ndax njortu day indi fitna mbokk yi njortu dafay tege rek ci wax walla ci jëf te lépp li koy lal mooy woru ak i fen yàlla nañ ci yàlla musal su ko defee nag su wax yëkkatikoo tegu ci njortu walla tuuma fan lay mujj résultat bi li muy doon mooy indi fitna yëngal société bi yëngal nit ñi déstabiliser nit ñi jàmm dootul am kenn dootul am jàmm su fitna boobu jógee nag kenn dootul xam layam ndax kat xob la ko dugal ci pax du ko ca génne kon nag moytu fitna dafa bokk ci baax alimaamu zarqaani nee na njortu day mooy tuuma loo xam ni ci xolu nit ki lay tege rek te amu ci dalil maanaam nga jékki rek tuumaal nit wax na lu la arrangé wul wala lu la neexul donte yàllaa ko wax donte yonent bee ko wax waaye dootoo gis ni yàlla wax dootee gis ni yonent bee wax da gis ni diw man lay attaqué diw man lay waxal nga commencé nag di sos di yëkkati ay baat loolu moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne iyaakum wa zanna fa inna zanna akdabul xadis nee na moytu leen njortu nee na njortu waxtaan yi moo ci dàq fen sa xel li mu lay jox bu dee njortu rek jàppal ni fen la parce que njort mooy loo amul certitude ñaata kër la tas ñaata sëy la tas ñaata xaritoo la njortu tas mbokk yi njortu moomee duggoon na ci biir sahabatul kiram te day jëmbat ci biir nit mbañeel saabu njortu amee rek mbañeel am su njortu amee noonoo dana am su noonoo amee wax loo amul tegtal day am ndax léeg-léeg nga njortu wax loo xam ni keneen jël wax jooja attaqué ca wala mu wax ca leneen fekk li ko indi mooy tuuma ndax defoo ta sabbut kon loolu képp ku nekk boroom xam-xam war nga koo moytu ku nekk boroom tur war nga ko moytu ku nekk ku ñuy déglu war nga ko moytu kilifa war naa teey su mbir amee balaa ngay yëkkati kàddu nga bàyyi xel lan moo am ba pare xool leen yaa Aïcha ci njort rek lañu ko tuumaale ci njort rekk ndax ki ko tuumaal naafiq la waaye keroog dugal na ci biir jullit ñi fitna seen yaa Aïcha mu am ku koy indi rek mën a ñaar ñee seen diggante leeru wax ko ci digg pénc mi xoola saxaabatul kiram nga xamante ne mooy jiil bi gën a baax waaye wax jooju yëkkatiku na ba am na ñenn ci biir saxaaba yi ñu commencé gëm wax ji ñu commencé jàpp ni yaay ay sa njaalo na ah pourtant booy mën na nekk de a ah, a ah, tout cas bul weddi de te loolu la la islaam njëkk a borom bi keroog ba muy wàcce alquran lu mu ci teg lawlaa iz samituhu zanna almuminuuna walmuminaati bi anfusihim xayra wa qaalu haada ifkun mubin borom bi nee ne bu tuuma amee borom tegu ca bët wax ay waxam tee bi ngeen ko déggee ndax ñépp koy dégg waaye nag mu ne wa zanna al muminuun wal muminaat kon ki gëm yàlla njortam daa war a rafet moo xam jigéen la wala góor moo tax mu ne wa zanna al muminuuna wal muminaat bi anfusihim xayra suñu nee sa morom dafa njaaloo comme yow doo ko def jàppal ni moom du ko def waaye nga seetal sa bopp pour pourtant mën na ko def man moom du ko def loolu moo tax borom bi ne wa zanna al muminuun wal muminaat baat bi nga war a yëkkati boo jàppee sa bopp jullit jàppee ko ke boo jàppee sa bopp gëm yàlla jàppee ko ke boo jàppee sa bopp mbaax jàppee ko kële bul jàppee sa bopp sàmba jàppee nit ñi ma sàmba jullit du doxee noonu kon waxal yiw njortul yiw bi anfusihim xayra wa qaalu haada ifkun xadim wax leen lii kat ifkun mubin fen la kon jullit pour société bi am jàmm ñu dund dund bu dal mooy nañuy murtu moytu yooyu mbokk yi ñaata yoon la njortu daggee mbëggeel diggante ñaari wit indi fitna ba xol yi bañante la koy sabab njort nit wax lu ko leeru rek nga jàpp ni am na ba mere ci nit doganteeg moom bàyyanteeg moom wala nga yëkkati kàddu attaqué ko te fekk yow mi koy attaqué amoo tegtal ci li nga koy attaqué wala ba nga koy attaqué sax waroon nga seetlu ba xam ndax noonu la ba pare ba nga koy attaqué bu fekkee ne koo xam la mbaa koo miin balaa dara mais nga jëflanteeg moom waxal ak moom ba xam lii nangam nangam nangam ba nga am lu leer kon mbokk yi bëri na njortu sëy yu mu tas ànd gu mu yàqu waaye ñaareel bi. bëri na ku ñu tuumaal te fekk ku set wecc la góor gu set wecc la mbokk yi lan moo indi ñu tuumaal ko yàq derem ba tëj ko ci kaso yàq deram ba rey ko ci yàq deram ba rey ci njabootam wala yàq dundam lu koy indi mooy suu u zann ñaaw njortu jullit da ko war a moytu moo tax Umar ibnul Xattaab radiyallahu anhu doon wax wax ju am solo ne laa tadunna bi kalimatin sadarat min axiika charran wa anta tajidu laha fi lxayri mahalla nee na bul njort mukk mukk baat bu sa moroom wax nga it indi contraire bi sa moroom bu waxee dara rek jëlal li baax mais fekk yaa ngi am buntu setal ko setal ko kon jullit noonu lay bindoo waaye nit wax ba pare nga jël wax di ne lii la ci jublu yow yaa ne ci xolam yaa xam lan la jublu ci waxam mais waxu jàmbur kenn du ko firi nit wax na nangam rek nga ne pourtant ñoom diw lay wax pourtant ñoom nangam lay wax yonent bi nee na nangam mun a ñee la attaqué léegi nag boo defut ndànk dinañ la dugal ci nga commencé giser lan moo tax ngay giser dootoo gis ni wax ji yonent bee ko wax sallallahu alayhi wa sallam dootoo gis ni wax ji alquran a ko wax mais dangay gis ni am Umar Sall la ko wax wala benn sàmm Ndiaye mu indi fitna boo xamante ni kenn dootul xam fu muy yem mbokk yi xanaa xamoo ni tëj buntu fitna. dafa bokk ci jikko yi nga xam ni moo gën a rafet ndax day tëjal seytaane bunt yi muy ubbi seytaane bis bu nekk day ubbi buntu ñaawteef buntu fitna buntu jaxare boo ko bëggee dindi dindee ko xusnu zan xusnu zan léeg-léeg nit wax la dara nga ne sama xarit la sama xarit la musuma fen kon gëm naa ko déedéet kenn du jëlee noonu mbir bu ñu waxee mu nekk contraire nekk lu mën a taal fitna mën a taal aw dëkk mën a yàq àndandoo bul nangu loolu lawlaa id samitumuuhu wa danna almuminuuna walmuminaat bi si xayra beneen bi mbokk yi xam leen ni ñaaw njortu mooy ubbi mbooleem buntu fitna day ubbi ay bintu bàkkaar mbokk yi ñaaw njortu day yàq diggante nit ñi fu mu leen di jëwe ci jëwante te jëw islaam da ko bañ wala yaghtab ba'dukum ba'da day indi tuuma te tuuma islaam da koo bañ day indi rambaajoo waaye day indi sax seetante léeg-léeg nit wax na dara gëmoo ko nga xamante ni jamono bi ñuy dund nga xamante ni jamonoy technologie la nit mën na toog léegi fent aw fenam wu rëy dugal ko ci Facebook mbaa mu dugal ko ci WhatsApp yi bu ko defee rek àdduna jaare fa yàqu kenn ku nekk bëgg a àtte tey technologie avancé na avancement boo xam ni mën ngaa jël nit yàq deram yóbbaale ci ñu bari mën nga jël góor jox ko bopp jigéen jël jigéen jox ko bopp góor kon kenn du àtte ci ay Facebook ak i WhatsApp kenn du ci àtte góor su nekk war naa teey mbir bu amee nga dal nga xool léeg-léeg ñu génn ay photo wan la diwa def nangam diwa def nangam boo xoolee gis photo diw bu mu tax nga ni moo def parce que ki ko def xamoo kan la kon bul gaaw a àtte teeyal jullit dafay teey dal balaa ngaa wax dara ndax bëri na ay nit yoo xamante ni seen dund yàqoo na ci loolu moo xam Europe la wala Amérique wala feneen nit dalay mere rek chantage la chantage la ci lan ci rek boo ma defalul nangam ma nangam boo ma defalul nangam ma nangam yu mel noonu nit ki war na koy bàyyi xel yu mel noonu gor war na koy moytu yu mel noonu nit war na koy rus parce que dinañ la ubbil fitna boo xam ni bu ñu deful ndànk rek kenn ku nekk mën na caa waxee kaddu goo xam ni yowmal qiyaam du ko mën a layal kon loolu nañ leen ko moytu mbokk yi. beneen bi ñaata nit ñoo dal ci kaw nit ci ñàkkatey dégg nangam rek tëb dal ci kaw nit wax ci moom àtte ko wax ci moom li nga xam génn sa lépp te kat xamoo luy sabab bi da ngaa dégg rek xool Facebook rek. wala nga xool whatsapp rek dégg naa nangam rek nga tëb bu dee imaam nga nga tëb nga xutba fekk imaam warul doxalee noonu gis nga xutba dafa sage dafa sincère balaa nga koo yëkkati te jublu ci aw nit teeyal bu baax balaa ngaa wax di àtte teeyal bu baax loolu nit da koy moytu beneen bi ñaata yoon mbokk yi la ñaaw njortu yàqee diggante ba ay dëkk rayante ca ay nit rayante ca ay nit gaawante ca kon mbokk yi lu mel noonu maa ngi koy moytu di leen ko moytuloo di wax ni règle bi ñu yàlla jàngal mooy jullit na rafet njort ci moroomu jullitam noo mel jàppal ni sa morooma la gën loo xam jàppal ni am na ku la ku la gën a xam loo bëri bëri xam-xam am na ku la raw loo am am am na ku la ëpple loo mën-mën am na ku la gën a mën miisaan boobu li tax islaam tef ko pour tawaadu ak am mënoo fee nekk yow rek doo juum doo yàq amul gis nga ki dul woon juum muhammad la sallallahu alayhi wa sallam yàllaa ko garanti waaye ku dul moom noo mun ci toll mën ngaa juum kon nag yu mel noonu buy amati war nañoo bàyyi xel bu baax mbokk yi am na jikko boo xam ni war nañ ko moytu ñii dund diina ñépp war nañ ko moytu waaye rawatina ahlu sunna rawatina jàngkat yi muy ban jikko mooy xuluqu taassub gis nga par parloo islaam da koo yàgg a xeex parloo day jëme nit ci tuuma rek day jëme nit ci njortal sa morom te seytaane bunt yooyu lay ubbi ahlu na jàngkat yi mucc nañ ci bokkaale wala boog ñi ëpp mucc nañ ci waaye seytaane du toog xam na ni xam nga bokkaale xam nga bidaa du la ci dugal mais xam nga fan lay dugal ci seen biir lay dugal coow attewante nag dangay toog sa place ah diw de nangam diw nangam kële toog diw nangam diw nangam ndeke jamono bañ koy wax ñu ngi jëw ñu ñuy bindal bàkkaar te duñ ci xam dara dara dara mbokk yi par parloo islaam dañu ko tere par parloo ndax day tàqale jullit ñi ni mu amee ci këru diine yi noonu la amee ci këru niñ koy waxee ci ci association islamique yeeg ahlu su yeeg yooyu noonu la ci parparloo amee te loolu baaxul islaam da ko tere islaam buy tere ñëpp la boole tere ñëpp la boole ndax parparloo dafay indi fitna su indee fitna nag mooy seytaane day indi géew gu yàqu moo tax yonent bi da ko bañoon ba bañ ku koy def yonent bi ne laysa minna man daa ila asabiya nee na bokkul ci ñun kuy xëcc di jëme ci par parloo jullit da ngay yemale jullit ñépp ku la neex mën nga koo bëgg waaye nag bu mu fës gis nga bis boo yemale jullit ñépp ku am problème ñépp ay am problème ci yow waaye bu fekkee ni danga jël ñii teg fale jël ñee teg fi su boobaa loolu jamono dalay àtte dalay jàngal bis dana ñëw nga xam ni par parloo baaxut kon jullit ñépp benn lañu jullit bi juum jullit bi xam jullit bi xamul jullit bi am xam-xam jullit bi amul xam-xam nañu moytu parloo mbokk yi loolu moo yàqoon diggante banu israil muy yahud ak nasaara parparloo moo leen ko indal ndax kat yahud yi dañoo jàpp ne Muusa moom rek ay yonent nasaara yi jàpp ne Isa moom sax romb na yonent waaye yàlla la loolu lañ jàpp loolu moo lay indil moo tax borom bi ne wa qaalat al yahudu laysat al nasara ala shay wa qaalat al nasara laysat al yahudu ala shay borom bi ne wa hum awna al beneen bi mbokk yi nga yëg ni gis nga bu ñuy dund fitna jamono bi ñu toll adduna bi yépp laa wax kuy dund sunna rek yaa ngi ci fitna lan mooy dund sunna mooy dama bëgg a teg sama tànk fi ko yonent bi tegoon mais ku ne libre na ci ku ne am na droit tànn la la neex waaw su fekkee ma sàmba tànn na ma sàmba ma demba tànn ma demba ndax yow amoo sañ-sañu tànn yonent bi wala saxaaba yi kon am nga droit boobu léegi nag droit boobu nga am di ko topp nag loolu nga topp te gëm ko ay nit danañ la ci fitnaal di la ca waxal lu dul dëgg di la ca teg ay tuuma di la ca wax wax yañ la cay wax nag keroog kañ lay gën a metti mooy bu demee ba say mbokk jullit ni yow ñoom it di wax comme na ay noon di waxee su boobaa buntu fitna tàkk na kenn du xam fu muy jeexee kon loolu ñun ñëpp dañ ko war a moytu nañu moytu ci biir ahlu sunna yi ci seen biir fitna yu mel noonu jullit ñëpp amma waaye ahlu sunna yi xaasa lan moo tax tàqalikoo am lan moo tax parparloo am ñii ni fii laa far ñeeni ni fee laa far ñëla ni fële te loolu islaam dañu ko tere yàlla kenn lañu wax nañu ko topp muy muhammad sallallahu alayhi wa sallam ku dul muhammad nag boo dee ku baax nañu la roy waaye bu ñu lay roy ci dëgg lañu lay roy bis bu ñu demee ba gis ni bakkan dugg na wala sa xalaat dugg na wala juum nga dañ lay bàyyeeg sa njuum te ñun topp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolee la ñu islaam jàngal lan moo tax tey ñi nga xamante ne ahlul ahwa lan gis nga bu ñu amee soxla pour xeex ahlu sunna yi benn la ñuy doon donte ñoom du ñu ànd abadan borom bi nee na taxsabuhum jamian wa qulubuhum shata ñu ngi ànd pour xeex ahlu sunna yi di tuuma di indi lu nekk waaye ñoom ci seen biir bu ñu demee ku nekk sa kër doo gëm sa morom ndax ci principe yi ñu gëm ànduñ ci amuñu ay principe yu ñu àndee moo tax borom bi ne wala tanaazau fa tafshalu wa tadhhaba riihukum waay waay bu leen xëccoo su ngeen xëccoo da ngeen yonjox su ngeen yonjoxee seen doole dana dem mbokk yi jullit na moytu bu fitna amee rek nga daw fitna du noonu lañ koy dawee léeg njuum te mën naa man damay toog Sénégal ba damay jaaxle benn fitna dem ku nekk jóg bokkul ci man a àndul ci man farul ci sama mbooloo loolu mooy lan julli est-ce mbir yi mbooloo la est-ce que mbir yi mbooloo la yow mun nga nekk ab jullit nga wax dara njuumte fitna am mais na ñépp pare recevoir ne kii kat dafa juum waaye lu baax la bëggoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lan la wax unsur axaaka zaliman aw mazluma loolu mooy règle bi normal sa mbokk jullit dimbale ko bu tooñee ak bu ñu ko tooñee ñu ne bu bu ñu ko tooñee day xam nañu ni ñu koy dimbalee dañuy taxaw ci wetam waaye moom bu tooñee nooy def moom bu tooñee yonent bi ne da taxaw aar ko ba pare nag ne ko du nii da koy aar ba ne du nii waaye lu ñu teel rek bokkul ci ñun bokkul ci suñu association farul ci suñu jamaa farul ci nangam yooyu xalaatu jaahiliya la te mi ngi dugg ci biir jamaat islamiya yi dugg ci biir jullit ñi dugg ci association yi léegi problème bu amee ci kenn ñépp dañuy beru su amee ci keneen ñépp jóg loolu fitna la mbokk yi nañ leen ko moytu jullit day moytu jikkoy jaahil loolu islaam da koo tere beneen bi fi may jeexalee mooy luwaa yi ñu bëgg a génne ndax ay nit di ci dox toujours naan ku dal nitu diine ku dal sëriñ dañuy dal sa kaw d'accord alhamdulilah loolu moom bu dee loolu rek ñun ñëpp sant nañ ci yàlla ndax kenn dalu fi nitu diine léegi nag lan mooy sëriñ loolu moom war nañ koo leeral xam nga léeg-léeg nga gis nit dox loo xamante ni day nekk aleyka laalak léeg-léeg ñu fexe ba tëral loo xam ni ñëpp lay fitnaal xam nga islaam diine la joo xam ni moom ñépp la fa mu nekkoon démb fa la nekk tey islaam ba léegi day xeex bidaa ba léegi da koy xeex day xeex xuraafaat comme ni muy xeexee tafarruq ñépp a ci yem waaye tey bu ñu nee amul benn jëmm bu war a xas jëmm jaaduwul nit nag mun na koo def ci njuumte ñu jàppal ko intention njuumte waaye nag ka nekk ci suuf di jëriñu su jàppee ni la mu doon am mi ngi koy ñàkk da koy far jël def ko arme bu fekkee dañ ni kilifa diine kilifa aada kilifa diine mooy lan mooy ñi nekk ci tariqa yi kër yu mag yi nangul nañ leen ni ñooy kilifa diine waaye yeneen borom xam-xam yi ñoom bokkuñ ci kilifa diine yi wala ustaas yi moom moom moom amuñu fu ñu wéeru ñoom kon léegi tey même ustaas bu dee magit moom du borom xam-xam te danga nga gis ustaas boo xam ne danañ ñu diw kilifa diine la ustaas bi mën na koo jàngal jàngal njabootam. am na loi yoo xam ne bu ñu koy tëral nañu ko jàngataat ñu xool ko kenn amul droit dal ci yëfu jàmbur kenn amul ci droit dal ci yëfu jàmbur bu chef coutumier amee am na it ab chefu association am na ku jiite association kooku xanaa du sëriñ pourquoi kooku ñu mën di ko saaga di ko xas di def ci moom lu ñaaw waxtu bu nekk ñu seetaan ko léegi nag ñu ne bu fekkee laal nañu keneen ci turu diine kon tooñ nañ ko ma ni loolu du maandu loolu du maandu état bi na tey ci yenn yi muy jël na ko jàngat mesure u xool bu baax bu baax li ñuy tëral lan la ña ko dox ba di ko tëralit seen kaw lay këpp insha allah bu fekkee dañuy këppatal ahlu sunna yi nañu yëg ni seen kaw la luwaa bii jëm ci ñoom la jëm waaye jëmul ci ahlu sunna yi ndax giññaa ci yàlla ne amul benn ahlu sunna buy dox di saaga kenn bu fekkee nag yaa tudd saaga yow noo ko tuddee <laughs> yoon yi moomoo ko luwaa yi moomu leen ko luwaa yi li mu du saaga la wax jeex na man Umar Sall nee naa kullu bidaatin dalaala ku def bidaa def nga réer te duma ko mës dindi keneen sañu ko dindi nga mer fële toog ni saaga na sama maam mais yow loolu foo ko teg nga mer fële toog ni saaga na sama baay yow loolu far nga ko teg bépp bidaa réer la nga dem fële ni Umar Sall nee na ziyaara bàmmeel kenn waru koo def saaga na diw ndax diw da koy def diw la ñuy xool li mu def fan la ko teg mais li Umar Sall wax yonent bee ko wax yonent bi nee na laana allah yàlla yàlla rëbb ñi nga xamante ni dañuy dem ci bàmmeel yi di fa def ay feet donc loolu yonent bee ko wax ndax yow léegi yow li nga koy def di ci am xaalis ak wax bi ñu ne lii dafa xaram dafa tekki saaga sa kilifa loolu tekkiwul saaga sa kilifa kon baat bii jarul tiit jarul jaaxle ñi ko tëral lay këpp waat seen kaw insha allah en tout cas maa ngi dénk sama bopp ragal yàlla di leen ko dénk di dénk ñépp ñu teey dellusiwaat mbir boo koy def danga koy xool danga koy xool bu baax a baax a baax a baax mer def dara bis dina ñëw nga bëgg koo buddi mu tëla balaa ngaa def dara jàngal ko incha allah ñun ñépp danañu dund ku fi sa waxtu jeex da ngay dee kenn mënta rey kenn kenn mënta toloxal kenn ñun gëm nañ ñi maa sha allahu kaana wa maa lam yasha lam yakun su ngeen fi nekkoon di tuumaal ay nit ñu leen di tëj ba ahlu sunna yépp jeex du tee sunna dem su ngeen fi nekkoon di tuumaal nit ñi ñuy rey ba ñëpp jeex du ngeen tee mu dem yàlla moo yoral boppam mbir mi te dana dem insha allah allahuma ahdina wahdi binaa ya rabbal alamin allahuma yassir lana kulla asir fa inna taysir al asiri alayka yasir allahuma laka alhamdu hatta tarda